Ahí. ñu ànd ceeg Alaaji Assane Gueye président Macky Sall bu doon kuy seerey bulon ma nga ko yolomal léegi lu ñel wàllu yoon noone ne sax la yéenekaay bi laas waxe ñu ne jox nañ liberté provisoire Serigne Assane Mbacké jéggal ñeenti étudiants yu doon sànni xeer président bi mu demee université populaire na yoon na ngay yàbbee lëf la mu ngànkoon ak bàyyik Serigne assan Mbacké ginnaaw juróom benn weeri kaso ci njaareem ak ñeenti étudiants yi doon sànni xeer ci cortège présidentiel libération ne soo gisee moom Serigne Assane Mbacké mu am génn gi Moustapha Cissé ma mu joteloon moo dëggalul plainte bi

di sa ku ci mom mu bàyyi Toussaint Manga bu PDS lolé mo gëna yanu maanaam moy logique ci gis-gisam mel gi nak batay ci walu yoon yamul ci étudiant yek Serigne Assane Mbacké ne kay bi di Grand Place ma ngay wax ne Karim wadi ci lu yàggatul dan ko yobbu Cap Manuel mu don fa nag dëkkandoo Hissène Habré te foofee anami dundin wi fa la gëné walu yoon batay ak libération bi delu ci ci basirou fay yene kay bi ne Sidi Mohamed Bouhaleb bali fital yamu yoron ñoko sank sànk ci la tollu yoy bal ci bi ñuy génn ñom te manifesté gi ki yore walu nganaay ci l'école police ne bis ba amul benn alkaati bu mu jox bali fital loolee la wax nay seede doyen des juges observateur moom xëy ci ñi nga xamante ne ñooy liggéey liggéeyu garde du corps maanaam ñiy wattu kilifa yi ci seen wàllum kaaraange am ca ñu tumranke lool ndax li métier bay métti métti ñu ne fukki junne juróom benn la ñu am weer wu ne te seen bakkan xaj na ca wàllu politique enquête xëyee Modou Diagne Fada yéeni kaay bi dafa laaj ne ana lan lay waajal li waral laaj bi di bis bu yàlla sàkk mook ñooñee ñu tuddee réformateur di ñuy woote yeesal ci PDS di amal ay ñeel mbiri Karim Wade lu ñu ko laaj rek mu ne su dina ca tontu moom Modou Diagne Fada ca terewu amal seen i ndaje biir ndaw ña biir cadre yi naka noonu ñu mel ni ñuy daas seen i ngànnaay Papa Samba Mboup bu PDS moom doon ganu Walfadjri fa mu àndee mu ne ak Modou Diagne Fada mooy ne parti bi laaj na ak defaru waat maanaam réorganisation waaye jamono yi nu ko laajee la àndul jamonoy xeex la parti bi toll mu ne ca ku ne xam nga frustration yi faral di jugee ci ay renouvellement kon a néewal doole parti bi la Papa bu doon seeni jamono ñu tëj ku mel ni jiital UJTL Toussaint Manga du fa def benn fan waaye léegi bu ney mag lanu lanu mënoon mënatuñu ko li nu mën rek mooy wan yoon wi gune yi ngir nag ñu génnee ci kaso bi Karim Wade Pape Samba Mboup ne pexe beneen amul lu may jaamaarloog nguur gii fi ne gu Macky Sall te ci yi jamono la baaxee nguur googee nag ak njiit la président Sall ci laas jàng nañ ci ne fukk ak benn ci maire ñu opposition bi ca Casamance noppi noonu jàppale si ko moom Macky Sall yéene kaay bi ne Doudou Ka njiital FONGIP moo fa jaar moo waral ñu ne Doudou mu ngi ne sëxal réew mi ak PDS ca Casamance réew mi nag waxtaan mënu fay ñak ci géopolitique bi El Hadji Daouda fay njiital mouvement agir pour ne pas subir moo ni gisee ak direct info ñaawlu na ñak waxtaan bi dialogue politique lolé sax mo waral soxna Sidi Amsatou Sow Sidibé waxé ni mo waxé fan yi soxna sosé mom El Hadji Daouda fay Vava dafa japp né président Sall daf ko war jappé allié bi nga xamné mo gëna gën mo gëna wër wuté ak faux alliés manam waxna mom soxna si lamu gëm wàllu transhumance El Hadji Daouda fay né Djibo Ka du moom moo transhumé ji de waaye Macky Sall moko fekki ministre Alioune Sarr yole wàllu njënd ak njaay mi moom fekkiwul président Sall ci dogal bi ñeel suukar si ndax le quotidien nee na moom ministre bi dafa nangu autoriser importé gi suukar si bawoo bitim réew le quotidien dem ba jàpp ne sax ministre Alioune Sarr dafa dëkk Macky Sall le soleil moom lu ñeel dundinu askan wi ñi ne ci gox yi xëcc yi rawatina ak PUDC ne lu toll ci téeméer ak ñaar ci kilomètre tali daan ko tabax ño nga ca ñeel dëkki kaw yi benn forage it junniy mètre cube ci dëkk bi di Tessékéré wàllu sport yéenekaay bi di stade wax ci match Sénégal ak Namibie ak jafe-jafe wàllu budget roplaan bi yóbbu gaynde yi wàllu visa ak hôtel yi yéene kaay bi jàpp ne winduk daal jafe-jafe yi neen ngir fédération football bu Sénégal beneen jafe-jafe ngir Aliou Cissé di joueur bi di Zarko Touré yéene kaay bi ne dakaa bëgg a yóbbaale ca Namibie moom Aliou Cissé waaye Zarko Touré ak équipe am Le Havre dañoo am match altine war a fekki waa Lens laaj bi jëm ci ne ndax entraîneur am foofee ca Havre dina ko ba yeewi ngir mu mën a ànd ak gaynde yi du yomb nag ndax ñeenti match ci ginnaaw yépp titulaire la woon ak ñoom wàllu lamb sunu lamb ak Lac 2 ñoom ñaar la Gris Bordeaux di diir ñu ne ñoom ñaar ñi nga xam ni ñoo daan Tafa Gueye ginnaaw Tyson ak B52 mu mel ni rakk ju bëgg a fayul mag.